des applaudissements quoi ah parce que semaine bii ñu génn nii uh-huh. euh, moom moo nekk suñu coup de cœur ah et euh, coup de cœur au Sénégal gi yëpp uh-huh. vraiment uh-huh. Euh, Sénégalais yi apprécié nañu way bi ils ont tous adoré la chanson vraiment et puis avec une justesse boo xamee ni c'est extraordinaire ah ba pare elle est toute mignonne moomu macha allah bi nga xamante ni da koy daf lay dalal daal macha allah <laughs> dafa pur innocent xaw ma ndax remarqué ngeen. ok léegi avant muy wax je laisse je laisse euh, tout le monde apprécier ku ci nekk joxe appréciation am après ñoom moom ñu koy doog a bàyyi mu nuyoo comme ko woon wax naa na fi wax na léegi maman joxeel sa appréciation ci ci moom si wax nga. ma remarqué ci moom mooy <laughs> vidéo bi muy woy daju si je t'aime je suis jaloux bi mu ko waxee macha allah. te eh. baat bu neex la yow en plus. mais lancé bi nga nekk continué ci incha allah. Hmm. yaa dina jàppale bu baax. ndim vraiment ci apprécié tout le monde. waaw ah. waaw extraordinaire. Ah. incha allah ba pare justesse bi li nga wax sànq. Ah. dafa am solo ci ci musique sànq. macha allah <laughs> bon courage. Ami Diana. chérie sama chérie. topp nga nga def. chérie sama